Vous savez, chaque euh, chaque entraîneur son désir c'est. xam ngeen ne entraîneur bu nekk moom ndam la bëgg ñun nag ndam moom moo ñu fi indi woon ndaxte xamoon nañ jafe-jafe yi nga xam ne rek ñoom ñu ñu fiy xaar man nag sama yoon nekkul ci li nga xam moom mooy jeu bi waaye daal li amoon solo ci ñun moom moo nekkoon ndam li. c'est une chose qui était importante pour nous la RDC <laughs> le contenu était bon mais comme vous le voyez on avait fait match nul. gis nañu ko ci kanam RDC ca Dakar def nañu football bu rafet waaye ci njeextal la dañu tembo. te nag duma wax ne li ñu def baaxul waaye nag suñu kanam amoon na équipe bu dëggu équipe bu am pas-pas doon joué ci kanamu public am tey nag mën naa ne football fii dara yomb ci yéen ñëpp xam ngeen ko li may yaakaar rek moom mooy ni ñu footballé ak ñun ñu footballé ko ak ñeneen équipe yi fi des Mauritanie dama koy bamtuwaat rek indi nañu jafe-jafe yu mat sëkk waaye nag xamoon nañ ko te waajoon nañ ko bu baax. averti en V2